alhamdulilahi rabbil aalamiin wa salli allaahumma wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidil anbiyaa'i wal mursaliin nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa asxaabihi ajma'iin amma ba'd mbokki jullit yi noo ngi leen di dénk di dénk sunu boroom tabaaraka wa taala ragal yàlla te topp ko ci def ay ndigalam bàyyi ay tereem mbokki jullit yi sunu boroom tabaraka wa taala mi ngi wax ci alquran ne wadkuru nicmatallahi alaykum nee na na ngeen di fàttaliku xéewale seen boroom ci yéen wa ma anzala alaykum min alkitaabi walxikmati yacidukum bi ngeen sant seen boroom ci li nga xam ne wàcce na ko ci alquran ak ci sunna te fekk loola li ko tax a jóg mooy fàttali leen seen boroom waar leen ci moom ba ngeen mën a def lu baax bàyyi lu bon moo tax mu teg ce ne wattaqullaha waalamu anna allaha bi kulli shay'in alim ragal leen yàlla te xam ne yàlla dara ump ko lépp la xam sun boroom waxaat ne fa bashir ibaad nee na yonentam bi bégalal sama jaam ñi ñooñu mooy ñan mu ne alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana ñi nga xam ne bu ñuy déglu ay wax dañuy tànn la ca gën a rafet ñu tànn ko jariñoo ko jëfe ko mbokki julli di alquranul karim li ci ñëw ci ay waaraate yu rafet bari na lool li ci ñëw ci ay nett nettali yoo xam ne nit ñu jàlloon lañ sunu borom tabaraka wa taala delloo sil nu seen histoire di ñu ko nettali te rafet bari na lool loolu lépp nag li ko waral mooy seen nettali yooye ñu ni nettali seen dund nu mën a jël ca loola ay bind moo tax sunu borom tabaraka wa taala di wax ci alquran ne laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab nee na yonent yooye jàll nettali yi nga xam ne sunu borom tabaraka wa mi ngi koy nettali ay waaraate nga ca ay bind nga ca ci képp koo xam ne boroomum xel la mu bokk nag ci nettali yooyu nu sunu borom tabaraka wa ci alquran nettali luqmaan alxakim ak ay dénkaaneem luqmaan nag ab jaam la ci jaami yàlla yu baax yi sunu borom tabaraka wa taala moo ko def muy nit ku am daraja moo yëkkati mbiram amal ko solo moo ko tagg ci alxuraan moo ko tudde sax aw saar ci alxuraan ba noppi moonu wax ne moom ci boppam moo jox luqmaan xikma mu ne walaqad aatayna luqmaan alxikma an ishkur lillah jox nañ ko li ñuy wax xikma mooy ak xarañe ci lépp lu mën a doon mooy lépp loo dégg man koo xam man koo xàmmee boole ko ko xam-xam ak wax ju jub ak xalaat yoo xam ne yu jub la yooyu yépp buñ àndee mooy jur xikma ndax mooy tax lenn lu nekk nga mën koo jox xaqam te al xikma mooy lu am place nga teg ko ca palaasam lu am xaq nga jox ko xaqam sunu borom nag ne Luqmaan maa ko jox xikma sunu borom tabaraka wa taala mi ngi wax ne ci am solo goo xam ne xikma googu am na ko dañ di ko tudde ak xarañee wala teg mbir ca palaasam mu ne yu'til xikmata man yasha nee na kooku moom sunu borom tabaraka wa taala moo koy maye moo koy may nit nee na ku ko soob mu may la xikma mu teg ca ne wa man yu'tal xikmata faqad utiya xayran kathiira nee na nag képp koo xam ne may nañ la ma moomu nee na may nañ la yiw woo xam ne wu bari la yàlla nañu ko sun borom may kon luqmaan sun borom tabaraka wa taala daf koo mayoon jikko yu sell ba laaj nañ ko sax benn bés ñu ne ko waaw yow melokaan wii ñu gis nga melowoo ko ci wàllu ngëneel ak ci wàllu mbaax ak ci wàllu njub foo ko jële mu ne ah ñetti mbir de ngi yoo xam ne musuma tàggoog moom te fasuma yéene tàggoog moom bi ci jëkk mooy sidqul xadiis lu ma la wax jàppal ne dëgg la kooku tomb bu am solo la boo xam ne ku nekk war nga faa taxaw nattu ko sa bopp ba xam foofa tollu ndax loolu mooy ballukaayu ma lu ma la wax de jàppal ne dëgg la wa adaa'ul amaana nee na joxe kóolute mbir moo xam ne wóolu nañ ma ca day ak mu mu mën a doon na nga ma ca wóoloo woon danga ca fekk la nga xam ne moom nga ca wóolu woon maanaam sa yaakaar du ca tas moo xam sekkare soo ma dénk la du maa koy mën a tasaare masa tasaare mukk du caagi ne alal joo teg ci sama loxo la dénk ma ko ma di ko sànk wala ma koy jëmale fenn dama koy delloosi ci yow du caagi nit alal joo ma jox ne ma jàllaleel ma ko béréb sàngam ma dëngal ko mu jaar feneen kon ñaareel ba mooy adaaul amaana ba ca des mu ne wa tarku ma la nii lu sama yoon nekkul daal awma lu ma cay wax awma lu ma cay def dama cay génn kon loolu mooy ak maandu te fam yem kon dëggu ci wax ak am kóolute ci jëflente ak lu sa yoon nekkul nekkoo ca ñett yooyu ku ko meloo xamal ne li sunu borom tabaraka wa taala defoon ci luqmaan muy alxikma jàppal na def na ko ci yow saa boo nattee sa bopp nag gis ne am na ca benn bu fel wala mu woyof xamal ne yaa ngay sori xikma sooy boo nga jiima jóg tàmbalee saafara sa bopp jéem a defaraat sa bopp jéem a faju luqmaan nag sunu ko borom sunu borom di nettali pour mu nekk royukaay la moo tax bépp wootekat ci lislaam wala jàngalekat wala yarkat war nay settental dénkaane loqumaan yi nga xam ne moom la nu alquran wax ci saar woow yi di suuratu luqmaan ci boppam lu tax ngir nu mën caa jële ay bind yoo xam ne day jariñ kii woote ci ab wooteem kii yar mu jariñ ko ci na muy yare kii jàngale it mu jariñ ko ci na muy jàngale moo tax bind bu jëkk ba nu jëkk jële ci luqmaan moo di boo xoolee wax gi muy waqanteeg doom ji dafa am benn baat bu muy jëfandikoo muy benn terme boo xam ne moom lay wax ak doom ji muy ay baat yoo xam ne baat yu yu nooy la baat yu neex ci xol la baat yuy fàttali doom ji ki muy waxal ku mu doon la moo di baatu yaa bu nayya lay jëfandikoo yaa bu ya ci kàllaam ak arab dafa doon baat boo xam ne bu ko nit ki waxee doomam wala koo xam ne dafa tolloo ak doomam lamboo na ci xeetu cofeel wu jóge ci xolu kookee di wax ak xeetu mbëggeel woo xam ne mi ngi koy won ki muy waxal loo xam ne lu baree baree bari la moo tax yaa bu nayya lay jëfandikoo soo ko doon fii da wax ne yow sama ndoom yow sama ndoom firiwul ne xale bu tuuti la mën naa dem ba nekk mag waaye la nga cay yége mooy kii wax ak moom ku ko féete kaw la ci ay at moo ko mag amaana moo ko jur ëpp ko expérience ëpp koy jaar-jaar ëpp ko xam-xam moo tax yaa bu nayya yow sama ndoom kon loolu bind la boo xam ne képp kuy wax sa doom wala ko tollook sa doom di ko laaye biir wala nga koy jubbanti war ngaa jële foofu bind ndax kat ki nga xam ne danga nga koo fas yéenee tuxalal li nga am ci expérience ak i xam-xam ak i man-man war naa yëg ne yow mii da koo laaye biir war naa yëg ne yow mii da koo bëgg loolu dëgg la ci jëf lay doon waaye wax itam dafay firi loolu wax waxin dafa doon loo xam ne lu am solo la moo tax ma bi ci boppam fi mu njëkk a feeñe ci Luqmaan rek mooy ni muy waxee doom ji moo tax woote ci boppam wootekat bi dañu dañu bëgg ci moom mu am xikma uddu ila sabili rabbika bil xikmati wal mawidati al xasana yow mi woote jëme ci yàlla sunu boroom nee na na nga tënku ci xikma noonu yi nga xam ne noonu la joxoon luqmaan kon day dara gënta rafet dara gënta am solo baay bi ci boppam jamono yi muy wax ak doomam mu làmboo malaanam xikma doomam yëg ne baay bu ko jege mooy wax ak moom yëg ne bàyyi bu koy yërëm mooy wax ak moom di jëfandikoo ay baat yoo xam ne yu teey la yu lewet la yu sedd la su ko defee jege googi mu leen di jege ci lay mën a xamee nag seeni problème dëgg dëgg dëgg ci la koy mën a saafara te lépp mu ngi jëfandikoo jumtuwaay boobu ñuy wax alxikma dana leen mën a yar ba melokaan woo yi mu yor ñu yor ko ci moom bu ëllëgee am xikma mën a doon ñoo xam ne dañuy jëfandikoo baat yu teey yu ànd akub dal yoo xam ne mag mën na koo dégg kilifa mën na koo dégg dana wuuteeg terme yu bari yoo xam ne ndaw yi dañ koy jëfandikoo tey nga xam ne boo ko waxee jëmale ko ci mag manque de respect lay firi te fekk ñoom yëguñu sax ne loola la kon jàng wax jàngale wax ci boppam ak waxiin war naa bokk ci jumtuwaay yi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo tey ngir yar ndaw ñi ndax ñu xam ni ñuy waxee ku leen féete suuf ni ñuy waxee ku tolloog ñoom ni ñuy waxee ku leen mag ni ñuy waxee kilifa loolu ci boppam dafa bokk ci biir ak sori nag lépp loo xam ne luy lor la ñaareelu bind bi luqman alayhi salaam gannaaw bu mu waxee doom ji woote boobu mu ko mu yàbbu nay ji mu jëfandikoo li mu ko jëkk a dénk mooy defar pas-pas imaan mu tabax iimaan muy ngëm-ngëm ci xolam ndax kat ngëm-ngëm gi su dëgëree muy pas-pas bi ci lay dëgërale digganteem ak boroomam ci lay jege ndigali boroomam sori ay tereem waaye ci lay rafetale lépp loo xam ne xeetu jaamu yàlla la waaye ci lay rafetale itam digganteem ak jaami yàlla yi moo tax lam ko jëkk a wax daf ne ko yaa bunayya laa tushrik billah yow sama ndoom bul bokkaale ak yàlla kenn inna shirka la zulmun azim ndax bokkaale ak tooñ la goo xam ne tooñ gu màgg la tooñ gu màgg la yëmul ci rek doon ak tooñ ndax ak tooñ kat bu dee diggante nit ak moroomam ak tooñ la waaye bu dee diggante nit ak boroomam nag su boobaa tooñ gu jéggi dayo la su sunu boroom walbatikoo nag ne gu màgg la nag teg ca kon kooku may wane ni jéggi na dayo ndax la koy firndeel moo di ki bind te tàgguwul kenn indi la ci àdduna ji yor sa wërsëg yor sa wér gi yaram yor sa dund lépp loo soxla ci looy ñaan mu di la ko may lépp looy jéem a fekk ciw ay mu di la ko fegal ba noppi ne la loolu lépp charte bi mooy nekkal fi suuf defal ma lii loolu rek moo la fi indi jaamu ma nga wëlbatiku ñàkk koo jaamu rek di musibam boppam moo xam ne dafa tege fële nga wëlbatiku foofu jaamu googu nag nga koy jox keneen nag koo xam ne da koo bind comme ni mu la bindee yow kooku tooñ féetewu ko kaw loolu moo tax inna shirka la zulmun azim lépp loo xam ne dafa aju ci bokkaale muy wax wala muy jëf wala muy pas-pas nit ki dafa war a seet boppam raxas ko ba mu set wecc foofa la war a tàmbalee su setee wecc nag lu muy def lu nekk mu door koo def ndax boo kaale su fa nekkee moom lépp lu ñëw lu nekk yàqu na lépp lu ñëw yàqu na ndax pas-pas nekku fa mu ngi mel ne koo xam ne day ñaw te wëñ gëm yor fasu ko lu mu boros itam bu ñoddee rek lépp da koy topp wëñ ko da koy topp du dem fenn bindu ñetteel bi ngir mu wéral pas-pasam boobu mu jàngal ko li ñuy wax muraqaba mooy bàyyi xel boroomam ci fum mu toll fu nekk xam ne sunu boroom mooy ki dara umput mooy ki xam sa lépp ni nga xame sa bopp yow ak say jëf sunu borom moo la gën a xame noonu sa bopp yow ak say jëf kooku mooy muraqabatullahi subhanahu wa taala loolu la ko gën a ja tàmbalee jàngal mu ne ko yaa bunayya yow somas ndoom innaha in taku misqaala xabatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samawaati aw fi l ardi yati biha allah inna allaha latifun xabir mu ne ko somas ndoom xamal ne su amoon wenn fepp fepp wi ñuy wax xardal fepp wu tuuti la woo boo ko tegoon sa baaraam bi doo ko xaw a mën a gis daanaka sorewut ak li ñuy wax atome mu ne ko fepp woowu soo ko jëloon yóbbu ko ba ci ay montagne ya gën a lëndëm nga teg ko fa wala nga yóbbu ko ci asamaan ya gën a kawe wala nga xar suuf yi gën a xóot dugal ko ca fepp woowee sunu borom tabaraka wa taala mën na la ko indil teg ko tegaat ko ci sa loxo yati biha allah sunu borom tabaraka wa taala mën na ko indi kon kooku mooy ki nga xam ne dara umpuwu ko ci asamaan ak ci suuf lus di gis lu nekk mi ngi koy gis lus di dégg lu nekk mi ngi koy dégg lus di xam lu nekk ma ngi koy xam jamono ya nga wéetee ci sam néeg tëj ko fay làmp ya nekk ca lëndam ga waxuma ne looy def ma ngi koy gis waaye li nekk ci sam xel ma ngi koy xam kon nag kooku mooy sunu borom tabaraka wa taala loolu la luqmaan jëmbat ci xolub doom ji ngir mu mën a wattandiku lépp loo xam ne xeetu tooñaange la loolu nag mooy pas-pas bi nga xam ne li feeg nit ñi defuñu ko seeni xol jëriñoo guñ ci diine jëriñoo guñ ci diine ab yar la ak ragal yàlla la ak wéetal sa boroom la ak bari looy ñaan sa boroom tabaraka wa taala yooyu ñooy ànd may jaam bi mu mën a fuglu boroomam am li ñu tudde muraqabatullah lu dul loolu rek nit ki mën naa yor aw melokaan ci bitti yoraat weleen melokaan ca biir loola nag musiba la loolu nag dafa doon mbir moo xam ne sunu borom tabaraka wa taala moom la ko jaam bi ñaan nangu cee sonn jàpp ca sabab ya di ko jaamu di tàllal say loxo di ko ñaan guddi ak bëccëg ndax mu may la loolu waaye du caagi ne xam-xam bu baree koy joxe du caagi ne ak siiwte moo koy joxe du caagi ne wenn melokaan ci melokaani bitti yi ñuy gis mooy tax nit ki dem ba àgg ci martabab muraqaba kon muraqaba moom yal na nu ko sunu borom tabaraka wa taala defal waaye nag dees koy ci taqoog jaamu yàlla yi ak bàyyi mooy yàlla yi boole ko ak sax ci di def ay naafila ak di ñaan sa borom foo toll yooyu su àndandoo sun borom tabaraka wa taala da ngay mujj àgg ci eh, ma zaala abdi yataqarrabu ilay ma maata taqarraba ilay abdi bi afdal mimma aftaradtuhu alayhi nee na sama jaam bi lim may jaamoo lépp lu ma farataal ci moom moo ci gën waaye nag nee na sama jaam bi du dañ mukk nag bu defee farata yi ba noppi di def ay naafila di def ay naafila xatta uhibbahu su ko defee nag dana mujj àgg ci martabab ma bëgg ko foofee ko sunu borom tabaraka wa taala bëggee nag ngir ne dafa sax ca farata ya ak naafila ya foofa la koy ubbil buntub mu dem ba nga xam ne faaleetul doomu aadama yi ci ay jëfam waaye lu muy def lu ne sunu borom tabaraka wa la cay seet ki àgg foofa nag yaru ba àgg foofa ci digganteem ak boroomam moom la biiram ak bitti di nekk benn wala nga xam ne biiram mooy gën bitteem maanaam la muy nëbb digganteem ak boroomam ci ay jaamu yàlla moo ëpp li doom aadama yi di teg seeni bët foofa martal bala boo xam ne bu am solo la bindub ñeenteel ba luqmaan bi mu jiitalee pas-pasi aqida yooyu bindi aqida yooyu bindi ngëm yàlla yooyu ba noppi ci doom ji daf ne ko yaa bu nayya aqimi salaa taxawalal julli foofu danga fi jariñoo ne julli ci xeeti jaamu yàlla yi ñuy def ci cër yi mooy bi ci gën a màgg ndax su nit ki xasee wéral pas-pasam rek loolu moo ca sës ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah fu mu wéree ci xol bi nit ka déclaré ko làmmiñ ja dégg ko la ca sës mooy jaamu yàlla nag jaamu yàlla nag suñ koy def la ca sës la ca féete kaw te gën caa rëy mooy julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy jaamu yàlla ki nga xam ne ëllëg su baaxee jaamu yàlla yépp baax na waaye suñ ko tegee ci balance bi baaxut dara duut baax kon julli moom yi doon na ko wax ne kenn waru koo fooyee kenn waru koo caaxaane des ko waral a boole ci e, teg ko ci kaw mboolem jaamu yàlla yi nga xam ne doomu aadama yi ñu ngi koy def boo xoolee yit da ngay gis ne daf lay feddlil am solo goo xam ne pas-pas am na ko solo mooy bi mu ko wattandikuloo bokkaale jàngal ko nu ñuy contrôler sa digganteeg sa boroom bëggam yàlla la ca teg mooy jaamu yàlla loolu la nga cay dégg mooy ku tëboon di jaamu yàlla te fekk pas-pas ba baaxut yaa ngay bokkaale jaamu yàlla ga ak bàyyi ñooyam maanaam doo ca am benn tuyaaba ndax su bokkaale ba ñëwee da koy màbb day yàqu la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wala takunanna min alxaasirin loolu la sunu borom tabaraka wa wax nee na ko wàcce naa ci yow ni ma wàcce woon ci yonent yi la jiitu ne bokkaale soo ko defee say jëf yépp day màbb te dangay da perte loolu ab yonentam la koy wax kenn ku nekk xam na ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam du def loolu waaye su fekkee ne moom la ñuy wax loolu nag kon keneen moom taxut ñuy wax kon euh, ndax xol bi laab na ci yàlla rekk nekk na wéet lépp luy nuru jaamu yàlla diis ko jëmale ci mbindeef moo xam nit la moo xam malaaka la moo xam jinne la moo xam xeetu lum mën a doon jaamu sunu borom tabaraka képp moo ko yeyoo keneen amu ca lu toll ne tarfatul ayn su loola jàllee nag jaamu yàlla yi door a ñëw moo tax luqmaan xikmaam bi boo ko xoolee da ngay gis ne tadarruj moo ci am uslub bu neex muy wax waxin wu neex wu nooy lay waxik doom ji waaye wéral na pas-pas ba ba mu ci jógee nag mu seqi beneen jéegu muy dugg ci jaamu yàlla yi nga xam ne bu pas-pas baaxee nag moom rek moo ci war a sës su pas-pas baaxul jaamu yàlla du baax mu wëlbatiku nag ci juróomeelu bind bi nag di ko jàngal nu muy jëf jëflanteeg doomu aadama yi wan ko ne ko am na ay jikko yu lëndëm ay jikko yu bon jikko yu ñaaw yoo xam ne faw nga raxas ko ci sa bopp ba mu set wecc sa teeg doomu aadama yi door a baax jikko yooyu mooy lan mooy lim ne ko wala tusaacir xaddaka linnaas bu nit jóg yor itteem dikk di la wax aajoom jamono yim la koy wax nga di ko dummóoyu won ko kanam bu baax xool ko bu baax déglul lim lay wax bu baax kon nit ki jóge fële seqi ay jéegoom ba ñëw jaamaarloog yow di la wax aajoom nga dummóoyu ko fële wone ne li ngay wax dégguma ko kooko musiba la ci jikko yu ñaaw ci la bokk nee na ko boobu jikko raxas ko ci sa bopp wala tusaacir xaddaka linnaas wala tamshi fi ardi maraxa nee na ko bul jaar ci kaw suuf si di dox di tiitaru di tiitaru di wane ne man maa toll nii walla man maa mel nii loola nag léeg-léeg nga gis ku koy def jaar ci kaw suuf si di dox doxin woo xam ne boo ko gisee da ngay yëg ne kii nii muy doxe ak colom mi ni mu koy wonee ci kaw nit ñi fàtte na ne suuf sii mu jaar ci kaw di dox fi la jëm ëllëg ci biir la jëm kooku fàtte na loola kooku nag nee na ko kon booy dox ci kaw suuf si bul tiitaru mukk inna allaha la yuxibu kulla muxtaalin faxuur yàlla kat bëggul koo xam ne day damu di wax ne maa mel nii maa toll nii maa xam lii maa am lii sunu borom tabaraka wa taala dafa bëgg ko toroxlu ku yam ak doomu aadama yi lu la yàlla mën a may muy xam-xam muy man-man muy kattan muy am-am nga yëg ne jenn doomu aadama ci doomu aadama yi nga kenn rek nga ci yàlla da la indi am lum la may am lum may keneen am lum la xañ am lum xañ keneen lum la may rek am na leneen lum la xañ yéen bokk lépp it mooy yéen a fi bokk ñëw am diir bu ngeen fi am te kenn xamut nag nu nu sab diir tollu ndax nangami at la fukki at la téeméeri at la xamoo ci dara te bu jeexee it fii fi suuf rek nga jëm loolu nag ku ko yóbbaale di ko yëg da nga yëg ne sa moroom mii nga rombanteel gëne woo ko loo koy won loo koy wax ne ko man maa la gëne loolu kon foofa la raxasi jikkoy doom ji nag ngir mu defar digganteem ak nit ñi xam ne sunu borom tabaraka wa taala bëggul kuy réy réylu ci kaw nit ñi wala ku leen di won ne man nii laa mel ci juróom benneelu bind bi ginnaaw raxas na ci moom jikko yu bon mu won ko ne ko nag jikko yu bon yi boo ko raxasee ba noppi nag dangaa war a jélli nag jikko yu baax ya nag mbubboo ko lële daal mbubb la mu baaxul woon moo xam ne dafa xottiku dafa tilim dafa ñaaw mu jikko yu bon yi mu ne ko summi ko teg ko fële raxasu ba set nag sangu su ko defee nag sol nag mbubb mu baax mi te loolu mooy jikko yu baax yi bu ci nekk rek da ko ci jox ay misaal mu ne ko waqsit fi mashika waxdut min sawtik inna ankara al aswaati la sawtu alxamir nee na ko <coughs> lale mu ko tere nee na ko nag booy dox na nga yamale sa dox kooku dafa am ñaari maanaa jëmmi doxiin wa ci boppam na doon doxiinu nit rek waaye nit doonut leneen du mala du ginaar doom aadama la na dox doxiinu doom aadama waqsit fi mashika muy doxiin wu yem boo xam ne dafa ànd akuk dal gaawul ba ëpp yéexul ba ëpp àndut akub tiitaru àndul ak dara dem rek naturellement beneen maanaa bi mooy waqsit fi mashika mooy booy jóg di dem na la fulla tax a jóg li ngay doxi na doon itte jullit taxawaalu amul ci programme am taxawaalu mooy ki jóg di dem te xamul fu mu jëm wala xam na fu mu jëm sax waaye bu fa demee it defu fa dara ñëw toog rek ci benn grand place toog di waxtaan di waxtaan di ba mu neex la rek nga delluwaat ci sa biir kër kooku ci musiba yi nga xam ne wërta am ci waxtu jullit la bokk wërta am ci waxtu jullit daje fi béréb képp di waxtaan te programme boobu bis bu ne nga defaat ko bu waxtu wa jotatee nga ñëwaat ña nga fay dajal bu ngeen dajee wax rek ngeen di def waxu leen lu jëm ci diine waxu leen ci luy defar àdduna la ëpp ci waxtaan wa jëw lay doon wala dugg ci domaine yoo xam ne sa yoon nekku ca loolu jullit bi waru ko boole ci programme kon al qasdu fi l mashi mooy fépp foo jëm fu nekk na fekk yow xam nga objectif bi tax nga jëm fa xam nga sa qasdu mooy lan sa hadaf mooy lan bi nga dikkee def aajo jooju bu jeexee nga dellu kooku mooy melokaan waaye mu ne ko waxdut min sawtik nee ne ko sa kàddu booy wax bul ko yëkkati ba mu ëpp waxdut min sawtik waaye wàcce ko ba mu yem kon kàddu gi nit ki buy wax day wax ci nam ko woo kii muy waxal la nga xam ne bu ko waxee mu dégg ko jarul mu di ko weesu na yam ci moom kooku ay melokaani yar la yoo xam ne ci boo jàngee suuratu luqmaan ni ko sunu borom tabaraka wa taala di jàngalee luqmaan noonu la doon yare doomam kon bépp jullit mu di wootekat mu di jàngalekat mu di yarkat war naa yëg ne xikma bi sunu borom tabaraka wa taala wax ne may na ko luqmaan kon may na ko war naa yëg ne saar wi mu ko tudde it jox na ci jullit yi melokaanu ma boobu nu mu mel moo di ki ngay waxal di ko woo ci yàlla wala nga koy jàngal wala nga di ko yar bul ko jàppee koo xam ne ku ñàkk solo ci kanam la di ko gëdd wala nga koy wax wax ju ñaaw joo xam ne duutu mën a jariñu ci yow waaye na doon wax ju teey yaa bu nayya ñaareel ba mooy ki ngay yar wala nga koy jàngal wala nga koy woo tàmbaleel ci tabax pas-pas bi su pas-pas bi defaroo ba baax lépp lu ñëwati dana baax pas-pas bi nag su baaxut nga xam ne boroomam amut ci moom ab cër lu dul li muy wax ci làmmiñ bi ñi di ko dégg kooku mën naa ñëw fii julli mën naa wax wax ju baax ñu koy dégg waaye su weetee def jëf ju ñaaw ndax bàyyiwul boroomam ci xolam amu fa place wala yaasu billah su defar pas-pas jàllee mu ne ko jublul nag ci jaamu yàlla yi julli yaag koor yaag seeni farataak seeni naafila loolu moo ciy tegu ndax defar nga fondation bi ba tabax bu ñëwati rek dana mën a taxaw te bu taxawee dëgër su loolu jàllee nag sa pas-pas wér na te yaa ngi jaamu yàlla ca nam jaadoo la ca des mooy li def ci sa diine mooy wàllu nit ñi ci sa diine nag mooy sa jikko ji ngay jëflante ñoom jikko jooji defar ko ñaari bànqaas la am benn bi mooy raxas jikko yu ñaaw yi ba mu set wecc loolu la ñuy tudde tasfiya beneen bi ci des mooy nga jëli jikko yu rafet yépp fexe ba mu bokk ci say melokaan loolu lañuy ñuy tudde taxliya yooyu su ko nit ki boolee day daal di doon personne boo xam ne bu mat la personne bi mat ci lislaam mooy koo xam ne defar na pas-pasam mi ngi jaamu yàlla defar na ay jikkoom ci raxas jikko yu ñaaw ya ak jëli jikko yu baax ya takkaayoo ko kooku mooy doon nit koo xam ne ku mat la yàlla na sunu borom tabaraka wa taala jox melokaanu mel noonu allahuma ahdina li axsani al axlaaq fa innahu la yahdi li axsaniha illa ant wasrif anna sayi'aha fa innahu la yasrifu anna sayi'aha illa anta ya arxam arraximin allahuma la tadac lana danban illa gafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaytah wala maridan illa shafaytah ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة مما يرضيك من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأقم الصلاة